démb dafa génn def ab sortie mm-hmm. moom nag candidat la waaye ci régime bi mbokkoon ak nguur gi mbokkoon bokkoon ci lay génnee ay secret yu baree baree baree bari mm-hmm. yum ne amee na noona mm-hmm. joxoñ na chef de l'état joxoñ na ministre Aly Ngouille njaay joxoñ na Mimra Bale joxoñ na ñu baree baree daal ci wàllu miin ak wàllu jamaak yu ay contrat yoo xamante ne jaarul yoon ak lu bari ba jamono jii ma nga ca loxol yoon toog noo jàngate eh, sorteem boobu ak waxam lan mooy jama <laughs> xam naa jama <laughs> jama man de jama man daal pétrole ak gaz laa doon dégg. waaw waaye moom la doon dégg. boole na ci jama xëy na jama bi dañ koy wër. waaw ma ma dellusiwaat kon ci li ma la waxoon. Mhm. Moussa Diop. waaw Galaye ak Bàcc. Mhm. ku yëkkati wax. Mhm. nañ yow ci wax jooju. sëñ Mbàkke. nii Omar def te seetal na Omar. kàddu yooyu nag mënut a ñàkk. ginnaaw nee na. document sàngam ak sàngam moo xew wax ko ñu dégg ko ñii miim nañ wax ñoom tam ñu dégg ko bu fekkee liñ miim looloo li wér ñu ne ko Moussa tooñ nga kaay toog fii bu fekkee moom li mu wax moo wér koo mën a doon layalal sa xaftaan bii nga sol te mu jot xaftaanu honre bi kat daf koo layal waaw am déet da layal teñ bañ ci saaga lu tax waxoo ko woon yaa ngoon ci régime bi mhm. déedéet mhm. wax ji mooy ndax dëgg la am du dëgg waaw bu dee dëgg neexal leen Moussa mhm. nañ ko neex bu dul dëgg nag ah waaw Moussa waaw <laughs> du wërta demee noonu <laughs> mais Oustaz léeg-léeg ngi ci nit ñi jàngat ci wàllu politique mooy bu ñu demee ba toll fii ci ay élection léeg-léeg bu ma dëgmalee ngay dégg yenn yi mhm. ay nit ñu bokkoon ci ab régime mhm. génn commencé koo du baaraam fañ nekkoon mhm. euh, te nekkoon ci biir nga xam ne léeg-léeg ñenn ñi dañ naan diw de lam xam bu dee dëgg la it xamu ko woon tey lu tax tey <laughs> waaw xam nga euh, juray ji waaw juray ji waaw juray ko juray ji kaay ndox mu lànk ndeysaan juray ji ne ko damay naafi la damay naafi la waaw mu ne ko yàlla na la yàlla nattoo pexem jigéen allahu akbar laa ilaha illallah moomi saat yi mm-hmm. yàlla na la yàlla nattoo pexem moomi saat mm-hmm. mm-hmm. juré ju toog ci jàkk ji rek ñu fay jënd jigéen mu ngàbbi fa bébé laa ne ko am sa doom ji kat mënta lu ma nàmpal mu ne ko sama doom jan mu ne ko ku jur bi ku dul yow gis nga wax jooju penc ma xaat def ñaari groupe ñeneen ñi naan attan na ko de ñi de lu leen ji ñooma comme Sénégal rek <laughs> comme ñun rek oustaz loo bind lu nit baax baax loo njort ci moom baax loo bind ci moom ci internet bi am groupe bu ne boo demee moom foofu laa jëm ci xista bi waaw <laughs> mooy jàkk ja dina tàcc mhm. juray ji daal di xam ne adduna mhm. tukki na mhm. ñu wutal koy avocat maître ma soxna kan waaw ndeysaan <laughs> maître Bokunte waaw maître El Hadj Diouf maître Baro utal ay ay ay mu ne leen hmm. lay wii avocat mënu koo lay hmm, hmm. waaw tuuma jëree de waaw fekk ko muy jàngale ko waaraat yàlla xam ja yàlla ñu ko bébé ne ko yaay bàyyam yàlla xam na <laughs> ah man tiit naa sax <laughs> mu ne leen avocat mënu ko mënu ko ah. ne bébé bébé ne ko naam laa ilaha illallah def bébé ne ko ça <laughs> moom bébé ah <laughs> waaw waa jàkka ji def nan ah waaw jàkka ji ñoom ñëpp jóg taxaw wër ko ñenn ñu daw bébé ko ça mu ne bébé maay sa papa <laughs> bébé bi ne ko déedéet alhamdulilah mu ne kuy sa papa mu ne ko ah, bu la sama yaay tegutoon tuuma de duma ko teg tuuma ci jàkk ci mm-hmm. moom bébé bi ah ne ko bilaay bu la sama yaay nuru nammut woon a toroxal du ma ko weer <laughs> damay noppi rek kon bébé yi xam nañ lépp dañoo noppi ah Mbacke wax naa la ne léeg waaw oustaz nit tëral bébéem yëkkati nga ganaay li waaw def trois cent mille waaw papaay bébé di wutum xar waaw te bébé xam na ne yaayam dañ ñëw ah mais bébé du dimbali baayam wax ko. déedéet kon day rambaaje kon mu rambaaje papaam ak yaayam te kon sëy bi tas. moo tax moom danaan teel rek. waaw <laughs> mais nag oustaz nag bi bébé yi dul wax <laughs> mais kon seen yaay yi am problème parce que <laughs> toog di wax téléphone di leb bor yoo xam ne di. rek ak bébé bébé mën na ko papa. waaw y' y' a quelque chose ici. te jumtukaay yi tax a na wax yëpp mu ci bébé. wallaahi yàlla xam na ko. waaye laa yatakallam. wallaahi bébé ne ci keroog nag bébé daal di wax. waaw kii baayam ñëpp tas. ah ji wax wax bébé bi wax juree ji ne ko. waaw diw mooy sama baay. waaw yow juróoma. nga sëñ Mbàkke. Hmm. bu doy waar. Hmm, bu doy waar oustaz. mooy awlawiyaat yi. Hmm. moo war a jiitu. kamaliyaat yi. complémentaire yi. waaw déedéet. waaw nañ jiital priorité yi. yi war a jiitu jeex na ok. bi mooy jure ji li mu doon def wuy jaay ma ko gën. moo ko gën waaw waaye ñàkk gaawu ji moo ko jural fi penc mi ñu def bàyyi fi nga xam ne mooy mooy mu yëf yi mhm. nekk ci détails yi mhm. subaa ngoon kawt kawt ba fi nekk ni mhm. bu bu tuuma jógee ni a def nangam coow li tax duñ ko seet wallaay waaye wax ji rëy na yow diw ak diw ak diw yéen a jël nangam dugal ko ci njaayum nangam am ngeen te nangami milliard layal leen ko loolu du caaxaan wallahi te bu loolu setul nga toogaale ko. Hmm. ba baa yemul xam fa lay nekk. dëgg la dëgg la. kon nag Ali Nguy Ndiayo. Hmm. Ali Diobo. Hmm. Ali Moussa ku ci ma di doon. tudd nañ ci nangam. topp leen ko ba mu set wecc. waa ji wax na dëgg na ko réew mépp neexal. wallaahi dëgg. na ko réew mépp jàmm. dëgg la jàmm na ñooy. jàmm na ñooy daanaka bu ñu doon doxalee noonu. ah oui naa bind yi ñu jël tey wax dëgg yàlla eh, ay. bindi université la. ci njàngale mu kawe. alhamdulilah tàmbalee ci Seydina Omar ak ak ak ak ak giiñ gi. ak ni mu ko layale ndeysaan waaye tàmbali itam ci information bi bu information ñëwee niñ ci war a taxawee ndeysaan defe naa loolu buñ ko doxale woon noonu suñu pénc dana dana na ñooy dana na ñooy am pénc ne bu dee ay jullit ña fa dëkk ña ko ëppee noonu lañ dundee mhm. seen delluwaay war naa mën a doon lislaam te duñ ci am benn complexe te loolu du ragal du dara waaye lu noppale la nag ah comme nopp ñu nopp lu ñu waaw ñu nopp lu ñu ndax li ñu nopp li ñu nopp mooy alxuraan dëgg la ah dëgg la li taxoo jana naas mi zulumaati ila nuur wallaay ndeysaan jërëjëf am na solo oustaz jërëjëf xam naa actualité yi bari na waaye ma mm-hmm. jeexale rek tey ci tey jii mooy màggalu Mbàkke Kajoor mm-hmm.